sa soxna tam ban bët la lay xoole bu dee indi nga xar mu ndaw sa doom ban bët la lay xoole bu dee indi nga xar mu ndaw donc ñun ñoo bëggul peut-être ñi am gis-gis bu waroo ak bi nga xam ne moom la ñu bëgg nit ñi xoole ñu mais boo defee tam la nga àttan ca noo ko mëne mambay boo tëddee di nga nelaw wax fa dëgg man de loolu laa gis léegi nag li ci des mooy nañu góor góorgóorlu tamit parce que li fi nekk ci xar lu bëree bare li waral tam lenn xar yi cher gis nañ ko fii principalement Dakar mooy ñu bëri léegi dañuy yar te yar xar amaana moo gën a diis ko boo ko doon sàmm ci àll bi nga xam ne doo ci dépenser presque lu bëri. Mhm. mais xar moo xam ne da koy yeew benn place boo ko joxee mu lekk da nga jënd boo ko joxee ndox mu naan da nga jënd ak garab ya nga xam ne peut-être moom la ñuy àndal ci xont bi pour xar ma gën a taxaw gën a wér gën a gën a gën a am yàpp loole yëpp ay dépense la yoo xam ne boo ko dee jaay faaw nga aj ci ko ci njëg boo xam ne yaakaar nga ne lii boo ko ko jaayee di nga ci mën a faj yeneen i soxla yu dul sax tabaski bi mhm. foofu la mbir mi ne coordinateur Moustapha Niass moom moomee tey jii dana fekk ji njiitu réew mi président Macky Sall sa pale ci ab cérémonie bu nga xam ne dañu ko organiser ngir mu jébbal ko rapport bi euh, mu mel ni kon am na si lu nga xam ne ni jot nañu ko déggoo gannaaw ba ñu waxtaanee ci diiru ñaari ay bés ñu àndeen sax nanga ko bakka yokkoo coordonnateur bu dialogue national bi di Moustapha Niass jot na ni ki démb rapportu juróom-ñetti commission yu dialogue national bi di màndargaal njeexitalu waxtaan yi ci noone commission bu ci ne def na kéem kattanam ba def liñ doon xaar ci moom ginnaaw bi ñu wéyalee liggéey yi nga xam ne tàmbali woon nañu ko ci dialogue bu njëkk ba ci atum 2019 ngir gën koo ñoŋal yeggale liggéey bi ginnaaw bi nga xam ne mbasub covid bi moo daggoon liggéey yi ci ñaari ayu bés ñu am ci ay déggoo yu am solo bokk na ci ay question politique yu xaw a compliqué ci noonu sax commission politique bu dialogue national bi te nga xam ne waa nguur gi kujjee gi non aligné yi ak waa société civile ñoo ko séq dëppoo nañu ci fukk ak ñetti poñ ñàkk ànd ci ñeenti poñ ak ñaari poñ yoo xam ne jot na ko waxtaanee ginnaaw liggéeyu mbooleem juróom-ñetti commission yi njiitu réew mi Macky Sall fas yéenewaat yëkkati kàddoom jagleel ko ñi séqoon dialogue national bi ci cérémonie de clôture bi nga xam ne dina am ëllëg ci samedi bi laataa loolu commission de synthèse di ñëw war a dëxëñ mbooleem li ñu dëppoo ci commission yëpp te nga xam ne Marie Angélique Félix moo ko jiitee saa si tembe mi ngi def kéem kàttanam ngir def ko ci benn document boo xam ne moom la ñuy jagleel njiitu réew mi muy dokument boo xam ne njiitu réew mi da siy jot ba noppi laataa ñuy amal cérémonie bi tëj dialogue national bi samdi ci ngoon ca palais présidentiel Simon jaloo euh, national bi tey ji la ñu koy tëj sa palais ak si njiitu réew mi teewaayam rapport bi lañu koy jox mu war a def déclaration ëllëg ñu bëri di si xaarandi lu bari waaw tombeek euh, délai bi nga xam ne moom la joxe woon parce que rapport bi euh, rapport bi dialogue national bi ñu ko lancé woon le 31 mais mu ne woon waxtaan wi nañu fexe ba bu mu jéggi weer te bu sañoon sax balaa la le cinq ci weeru juin wii ñu toll ñu mën ko jébbal conclusion yi la nga xam ne tënk nañ ko ci biir waxtaan wala lañ ca juboo lépp. ñu xool nu ñuy fexe ba appliquer ko soit ci décret wala boog ci euh, loi boo xam ne peut-être dañ ko yóbbu assemblée nationale. kon foofe lañ tollu tey jii commission yi c'est vrai que ci diggante bi amoon na tuuti jafe-jafe parce que début mois de juillet gis nañu situation bi réew mi traversé woon trois jours de manifestation yoo xam ne xëy na commission yi liggéey nañu wala liggéeyuñu en tout cas seen liggéey demewuloon noonu ba finalement après la ñu vraiment am jotu commission yi am jotu mën a toog ngir mën a waxtaan euh, waxtaan woowee nag moom moo jeex ñenn ñi jeexal nañu depuis deux ou trois jours ba joxe nañu seen rapport jébbal ko Moustapha Niass mi président Macky Sall proposé woon pour mu coordonner dialogue national bi euh, commission politique bi def naa moom moo ci desoon euh, barki démb je pense la ñu jeexal seen liggéey donc démb mu nekkoon peut-être journée rédaction euh, journée vraiment mise au point wala boog mise au propre conclusion yi nga xam ne yëpp def nañ ko ba rapport boobee moom la Moustapha Niass mi yor euh, coordination wu dialogue national bi war a yeggee tey njiitu réew mi euh, jox ko ko peut-être ak ay kàddu yu ñuy mën a yëkkati en tout cas invité nañ ci taskatu xibaar yi pour bu ñu yeggee également ñoom ñu mën a fekkee xëy nag dina am kàddu yoo xam ne tam président dina ko ci yëkkati mais ñu bëri en tout cas ñu ngi séntu suba ci dimanche bi mu yëkkati kàddu na mu ko diggee woon ne bu conclusion yi jeexee bu ñu waxtaanee ba juboo dina yëkkati kàddoom wax ak askan wi léegi nag lan lay wax li mu nar a wax peut-être bokk na ci fësal li nga xam ne jot nañ ko déggoo ci jaloog politique bi nga xam ne moom moo moo jeex nii te dialogue politique boobee nang ko leeral na ko yemul woon rek ci benn commission buy waxtaanee wàllu politique ndax am na yeneen yoo xam ne ma nga woon ca wet ga lu jëm ci wàllu territorialisation lu jëm ci wàllu koom lu jëm ci situation yu bëri yoo xam ne ay social ak yeneen ak yeneen muy juróom-ñett ba juróom-ñeenti commission yi nga xam ne dialogue bu njëkk ba amoon 2019 commission yooyu la ñu indiwaat et peut-être même ak ñi nga xam ne ñoo leen dirigé woon à ba mu des benn euh, bi nga xam ne mooy dialogue politique nga xam ne dañoo mujjee changé keneen parce que ka fi nekkoon euh, yàlla dogal na mu wuyu borom donc situation boobu lañ toll tey jii leeral rek ne tam lii lu ñuy xaar la leeral ne tamit ca wet ga F24 amoon nañu seen dialogue bopp F24 mi nga xam ne ab kuréel la ëmb lu ëpp ñaari euh, téeméeri kuréel ak ñaar fukk yoo xam ne dañoo fare ci opposition bi ñenn ñi tam fare ci société civile ñenn ñi di ay association tout simplement citoyenne ñoom la leen boole moo di ne ñoom ñëpp fës nañu ne bokkuñu wala bëgguñu président Macky Sall mi présenté waat candidature am ñoom tam ñu sumb seen dialogue bopp tuddee ko pencum Sénégal dialogue boobee finalement lancé nañ ko ay wés wali ñu génn ci cité kër góor gi nga xam ne moo abrité siège mouvement gëm sa bopp ñoom it tamit seen jaloog ñu ne woon ñaari pàcc lay doon benn pàcc bi laata tabaski te def naa pàcc boobee soit jeexal nañ ko démb wala dinañ ko jeexal tey wala fan yi di ñëw mais en tout cas avant tabaski li ci des après tabaski lay doon waxtaan nañu ba am na lu ñu jot tënk ba am na benn yéenekaay bu ñu ne sax ñaari commission au moins pare nañu ba joxe nañu seeni rapport ba sax ñu ngi jéem a teg ay charte yoo xam ne ëllëg ñoom lañ ca juboo ba waxtaane ko ba juboo ci ba tënk ko bu yàlla dogalee ñu toll ci war a décider ci boppu réew mi ñoom dinañu tënku ci ne la ñu juboo dinañ ko appliqué parce que dañoo. gëti naa ndek yoo coowal l'hôpital la daan teg li jeexagul tribune yéen kaay moom a ko xamal xamal ma ni ñi nga xam ne ñooy dina ñuy dikkaat fas yéene nag soobu ci waxaale wi ne nguuru Sénégal yorel na leen ñetti milliards yu teg téeméeri millions yéen bi naan maan jàppal foofu coowal daan teg jeexagul xanaa kay day doog a door waxtu woowu yéen kaay bi dee média bi naan maan gendarmerie nga jaxasoo ni wëñ ku la équipe général Moussa Fall ci boppam la ñu daal di renforcer l'observateur naan attention président Macky Sall ndax nag mooy jël ñoo xam ne ay njuuma lañu saa ñu xëyee moom Sall ngaari lam toora bur géde di ko jommal fi mu ne nag Juan Branco mi ngi mel ni tey ñub nëq ci waa nguur gi laataa loolu taxawal nañ fi Ousmane Sonko taxawal nañ fi Guy Marius Sagna ñoo xam ne man di la saa ñu yeewoo di leen jommal jomeet Walf Quotidien ne ma dimanche la ñuy jommi wala téeméeri danse dana am ci nguuru Macky Sall bi ndax nag moom Sall dina wax ak askan wi la ñu bëgg dégg bu ko waxul réew mi dina jaxasoo la ca des mooy gaañaa ngay marche jagat jagat nee ñu dañuy dindi bloc blocus bi nga xam ne tëjee nañu ko Ousmane Sonko vox populi naan maan dialogue politique bi jeex na mbir mi am diggante yaakaar wu tas ak désintérêt ñuy xaar Sall ngaari lam toora Bourguédé mu daal di wax le quotidien le quotidien naan kon F24 tëj nañ seen dialogue ñoom it l'info naan maan waa F24 waar président Macky Sall di ko génneel nag ay waxu démbam moom Sall la mu doon wax ni ki ay ñoñam ci ne man ay daal ñaar yam na ci waa f génneel nañ ko ko le point yéen kaay mel ni Pastef day projet la boo xam ne nërmeel réew mi caxat-caxat yi ak salfaañi ay gëm-gëm ak ki bëgg-bëgg am dong la lii ko di ñee jox kàddu mambay ñang mambay naan force occulte yi la soupçonné noonu na ci réew mi njort ci ne diggante yaay yaaya jàmmeeg MFDC seen loxo génnul ci réew réewum Sénégal événement juin yi complot la ma ne la boo xam ne dañ ko bëggoon teg ci ndoddu état bu Sénégal mu far échoué te lépp loo xam ni fas nañ ko yéene def ci réew mi noonee rek lay mujjee gaay naan kon lañu saisir CPI nag mambay naan wax jaadul dëgg ca présidentiel ba nag mu naan gën ci ñun la ñuy choisir réussir te kookee président Macky Sall la l'enquête ko di jee naan en tout cas Karim moom ma ngi di xàll nag di defar chantier yi nga xam ne mooy tax moom doomu Abdoulaye Wade ji mu amal remontada dëgg daal di nar a nag jubaat Karim Meïssa Wade ñu nar a ubbi waat procès ba te buñ ko ubbee daañu ko setal wala vox populi naan maan en tout cas Macron ak président Macky Sall daal gisee nañu lu ñu waxtaanee Amadou Kanouté directeur exécutif bu SYCODEF ci yéenekaay bi naan la ma xamul mooy la Sall ak Macron yu dialogue bii boo moytuwul day jàmm du ci réew mi Walf Quotidien naan kon ma ne la jàmm boo koy jeex xaaral ba dibéer ci réew mi su Sall waxee ba noppi ba gaa yi jagat jagatee dinañuy libéré ji Ousmane Sonko réew mi dana metti wala laas naan kon tabaski ñu ngi koy waajal góorgóorlu nar a dund jaxaan na ma ren ji ci réew mi tribune yéen kaay naan kon client yi ak jaaykatu xar yëpp nangu nan ne ren ji day xar cher na ba jéggi dayoo ci réew mi l'observateur naan koon réew mi ñaawteef yàgg na fi wala Tambacounda vigile bii moo fat ñaari xale yoo xam ne juróom-ñetti at la ñu am ci bâtiment ña géej yi lañ fa doon def maar de taali na xel faatu waaye it bët bu ko gis da nga dund lu doy waar ci réew mi laata image yi génn sa bopp ak lu mën a am